waaw lu may condamné la lu may ñaawlu la parce que ku ma xam-xam ni man je ne cautionne pas la violence on peut faire de la politique mais ñu jël lépp loo xamante ni violence la su fekkente ni dem nañ ba munatul nekk parce que voilà quoi et puis nous avons dañu am une espace boo xamante ni du lu ma du lu may digal nit ñi de parce que wax naa ko ci njëlbeen bi moi je pense que le débat d'idées moom la ñu war a imposer te moom la ñu war a jaay mais bu ñu demee ba tëlee tamit xam ni mënuñu débat di wala didé wala amuñu xam-xam ku amul xam-xam nañ ko nangul ay saagaam nangul ko ay wax yu ñaawam moom la c'est le Sénégalais qui va juger mais tout sauf nag di yegg ci ay violence physique di dal ci kaw Sénégalais ni yow di ko dóor ay jaasi wala di xar boppam ak yenn déclaration yi nga xamante ni aussi c'est incendiaire je dénonce et je condamne on doit être lucide on doit être lucide un leader ne doit pas être émotif muy man muy kum ci mën a doon dafa am ay nit yu ñuy topp nit yooyu di ñu topp nañ leen di bàyyi xel suñu ay njaboot lañ ay doomi jàmbur lañ yu romb seen yaay ci seen kër te dara yëkkatiwu leen lu dul am yaakaar ci li nga xamante ni mooy projet bi képp ku nga xamante ni mu ngi def euh, ce qu'on appelle la provocation il faut l'ignorer vraiment nañ leen ignorer képp kuy def provocation bu la yàlla joxee caq da ngay fexe ba préserver caq bi ndax borom caqkat du xeex sax ak borom baatu neen amul lum ci amul luñ ciy gagné sérieusement amul luñ ciy gañe il faut être vraiment responsable et puis on ne peut pas avoir un leader très responsable ku am résilience ku mën a muñ mhm. comme Ousmane Sonko daj lépp dund lépp te kenn mësu ko dégg mu yëkkati baat bi gën a ñaaw teg ko ci deru nit mhm. dina wax ay waxam dina mbalak bañ na ko ba moom sax ci ay mbalak lay ne mhm. ñoom bu ñuy waxee dënn di xët-xëti moom mu ngay reetaan di di di kaañoo di kii nii donc affaire bi qu'on soit play te ku ci nekk naa la waxal nag de da war a roy ci sa leader ñun buñ nee jullit lañ. Mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk suñu référence. Mm-hmm. ah dañu war a am mandarga yi. màndarga yi nag dumbub mooy sol. mandarga yi nag du doxin wooy dox. mais mandarga wi mooy fu waxtu jotee da ngay julli fu weeru koor jotee da ngay wax fu natt asaka jotee nga mën ko da koy def fu saraxe jotee nga mën ko da koy def mm-hmm. lépp li nga xamante ni mooy ponk yi da nga koy def su boobaa lañuy mën a wax ni kii jullit la. waaye nag li ci ëpp solo mooy yàlla moo xam. ak ñun parce que à la fin de la journée ñaar ngay rendre compte sa conscience ak yàlla bi am solo dëgg-dëgg nag ci jullit mooy nañ leen fóot xol yi nañ leen rafet xol nañ leen rafet buñ rafetee xol rek mooy feeñ ci espace bi mais bu ñu amee ay xol yu ñuul énergie boobu mooy feeñ tamit ci espace bi kon il faut faire très attention et voilà